seeni bataaxal firndeel nañu ko kenn ku nekk ci yéen nu ngi koy delloo njukkal su ngeen koy fàttaliku gisoon nanu fi ni yéesu firndeele woon ne dee woon na waaye deewul woon rek yem ca dafa dekk ñetti fan gannaaw ga ngir firndeel ne yàlla nangu na saraxu yaramam noonu képp ku gëm yeesu dinga am dund gudul jeex gi te mu dekk la bés ni mu dekkee woon moom ci boppam xarit yi ñuy déglu wolof njaay dafa ne soxlu mbër làng moom a ko gën muy bëre di daan ngay ree yéesu mooy mbërum yàlla mi te yàlla moom du ëm mbër muy daanu mukk mbokk yi ni déglu loolu moo tax nu fas yéene waxtaan tey ci li xewoon gannaaw ba yéesu dekkee booba jigéen ña seeti woon bàmmeel ba gisoon nañu fa ñaari malaaka yu leen wax ne lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki fàttaliku leen la mu leen waxoon ba mu nekkee galile newoon na faw ñu jébal doomu nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ca ñetteelu fan ba noonu la jigéen ñooñu di maryaama magdala saan ak maryaama yaayu saak deme nettali ji mbir yi taalibe yeesu ya waaye ñu teg wax yooyu ay gént ba gëmuñu leen ci kaw loolu nag kàddug yàlla ne ca bés boobu ñaar ci taalibe yi di dem dëkku emmaus te mu sore yerusalem lu toll ci fukki kilomètre ñuy waxtaane li xewoon lépp bi ñuy waxtaan ak a sottante xalaat yeesu ci boppam dab leen ànd ak ñoom fekk seeni bët muuru ba mënuñu ko woon a xàmmee yéesu ne leen lan ngeen di waxtaan nii ci yoon wi noonu ñu taxaw seen xool jeex kenn ci ñoom ki tudd kleyopas ne ko xanaa yow rekk yaa ñëw yerusalem te umple lu fi xewoon ci fan yi yeesu ne leen lu fi xew mbirum yéesum nasaret ab yonent la woon bu doon def ay jëf yu mag di wax ay kàddu yu am doole ci kanamu nit ñi ak ca kanamu yàlla waaye sunuy sëriñ su mag ak sunuy njiit ñoo ko jébbal nguur gi ngir ñu àtte ko teg ko dee ba daaj ko ci bant nun nag danoo yaakaaroon ne mooy ki nara jot Israël waaye bi loolu xeweek léegi tey la ñetteelu fan bi teewul nag am na ay jigéen ñu bokk ci nun ñu nu jaaxal dañoo fajaru ca bàmmeel ba waaye fekk ñu fa néewam ñu dellusi nettali nu ne ay malaaka feeñu nañu leen yëgal leen ne mu ngiy dund ñenn ci sunu àndandoo yi dem nañu ca bàmmeel ba fekk lépp mel na ko jigéen ña waxe woon waaye moom gisuñu ko noonu yéesu ne leen yéen daal yéen ñàkk xel te seen xol yéex a gëm li yonent yi yëgle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbalee ci yonent yàlla muusa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram bi ñuy jub dëkk ba ñu jëmoon nag yéesu def ni kuy jubal yoonam waaye ñu téye ko ne ko toogal fii nun ndaxte jant baa ngi so te léegi mu guddi noonu mu dugg toog ca ñoom bi ñu tàmbalee di reer yéesu jël mburu ma gërëm yàlla ba noppi damm ko jox leen ko bi mu defee loolu lépp leer nàññ ci seeni bët ñu daldi ko xàmmee waaye yéesu ne mes gisatuñu ko noonu ku nekk naan sa moroom ndax sa xol seddul woon bi muy wax ak nun ci yoon wi tey tekki mbind mi ñu daldi jóg ca saasa dellu yerusalem fekk fa seen yeneen àndandoo ya ñooñu ne leen dëgg la borom bi dekk na te feeñu na simon ñaari taalibe ya ñoom it daldi leen nettali la xewoon ca yoon wa ak ni ñu xàmmee yéesu bi mu damee mburu ma bi ñaari taaliba yee dee wax noonu yéesu taxaw moom ci boppam ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen ñu daldi tiit foog ne dañoo gis njuuma waaye yéesu ne leen lu tax ngeen jaaxle ak lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram wala ay yax ni ngeen gise ma am ko bi mu leen waxee loolu mu won leen ay loxoom ak ay tànkam waaye ba tey mënuñu woon a gëm ndax seen mbég ak seen jaaxle noonu yeesu laaj leen ne ndax am ngeen fii lu ñu lekk ñu jox ko dogu jën wuñu ñu mu jël ko lekk ci seen kanam noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu muusa ak ci téere yonent yi ak ci saboor dafa war a am noonu mu ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi wax mu ne leen faawu almasi bi sonn mu dee te dekk ca ñetteelu fan ba ni ñu ko binde te it ñu yëgal xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yemul woon ci feeñu ñi ñu tudd ci jukki bii di jigéen ña ñaari taalibe yu jëmoon emawus simon ak fukki ñaak ñaar ndaxte ci diirub ñeen fukki fan yéesu feeñu na leen itam ca tefesu dexu galile feeñu na ci benn yoon lu ëpp juróomi téeméeri mbokki taalibe laata muy yéeg di dellu ci baay bi it feeñu na leen barkel leen soog a yëkkatiku peeñu yooyu yépp mënees na jàng ni ñu deme woon ci kàddu dëgg gi kon yow mi déglu ci sa xalaat lu tax yéesu feeñu ay taalibeem gannaaw bi mu dekkee lu tax bi mu dekkee demul woon ca saasa ca kaw fa mu jóge woon peeñu yéesu ci diir boobu nekkoon nañu ngir firndeel ne mu ngiy dund ni mu ko waxe woon ci liñ linjiil ne des na tuuti ci kanam àddina duma gisati waaye yéen dingeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam dingeen dund lu mat ñeent fukki fan yéesu doon na feeñu ay taalibeem ngir firndeel ne mu ngi dund noonu muy waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci nguuru yàlla soog a yéeg dellu ca baay ba yéesu doon na leen leeralal mbir yi tey defal seen xol ba ñu jekk ngir defi sas wi mu leen dénk maanaam yëgle ji mucc gi nekk ci turam li ko waraloon mooy booba ay taalibeem déggaguñu woon li mbind mi wax ci moom ne faaw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ñu ko binde ñuy yëgal xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen gannaaw peeñu yi yéesu feeñu ay taalibeem ci diir boobu mu dekkee te yéegagul am na itam yeneen peeñu yu mu feeñu ay nit ñuy gëna dëgëral dëgg gi di yeesoo ngi dund ci misaal téere peeñu bi nettali nanu peeñub kenn ci taalibe yeesu ya di yowaana mu nettali ci kàddug yàlla ne xelum yàlla solu na ma ca bésu borom bi te noonu ma dégg ci sama gannaaw baat bu xumb nik liit naan bindal ci téere li ngay gis te yónnee ko juróom ñaari mbooloo ñi gëm ca dëkki efes samirn pergam catir sarde philadelphie ak lawdise noonu ma gestu ngir seet ku doon wax ak man ba ma gestoo yem ci juróom-ñaari làmpi diwlin yu wurus gis ku taxaw ci biir làmp ya niroo ak doomu nit mu sol mbubb mu gudd takk ngañaayul wurus ci ndiggam boppam ak kawaram weex tàll ni perkaal ay bëtam di xuuy ni safara ay tànkam mel ni xànjar bu yànj bu ñu xelli baatam di riir ni duusi géej mu yor ci loxol ndeyjooram juróom ñaari biddéew jaasi ñaari boor yu ñaw di génn ci gémmiñam xar kanamam leer nàññ ni jantub njolloor naka laa ko gis ma daanu ci ay tànkam niku dee waaye mu teg loxol ndeyjooram ci sama kaw ne ma bul ragal dara maay ki jëkk te maay mujj maay aji kiy dund dee woon naa waaye maa ngi di dund ba faw yor caabi dee ak jubar sàq waaw yeesu kirist mi dekki dootul dee mukk ndax dee mënatul dara ci moom mu ngiy dund ba faw toog ca ndeyjooru yàlla dinu fa ñaanal moom ci boppam waxoon na ne ni yàlla amee dund gi noonu la maye doom ji mu am dund gi kon ni mënu nu wóore ne kirist mi dekki mu ngiy dund noonu lanu wóore ne ni muy dunde dinanu dunde noonu ak moom ba faw ca àjjana bi yéesu waxee ne dinaa dund moo tax yéen itam dingeen dund mu ngi doon biral ne ñi koy gëm ñépp ci jamono yépp dinañu am dund gudul jeex gi ni mu ko amee moom ci boppam maanaam képp ku wékk sa yaakaar ci moom boo deewee dinga tàbbi àjjana loolu nag dëgg gu wér gudul dandu la te yeesu joxe na ci firnde keroog ba ñu ko daajaalee ak ñaari defkati lu bon ya ca bant ba kenn ci ñaar ñooñu dafa gis ne bàkkaarkat la te réccu mu wëlbatiku ci yeesu xam ne moo ko mën a musal yeesu xamal ko ne ci kaw ngëmam googu bu deewee dina tàbbi àjjana yow miy déglu it xamal ne mën nga xam bu wóor ne boo deewee tàbbi àjjana xam nga bu jëkk saraxi mala ya yeesu lañu doon misaal te ndegam tungu ne du teew ñuy nataal loolu moo tax ci mujjug jamono bi yéesu ñëwee joxe yaramam ni sarax ñu war a dëddu bépp saraxu mala fi mu ne nii li yàlla bëgg ci kenn ku nekk mooy ñu gëm yeesu ni musalkat bi am kepp ndaxte deretu yéesu ji tuurul waa àddina la yàlla di gis ci way gëm kirist bi ni mu gise woon deret ja ca bunt këri bànni israel ca misira ba teggi leen moo tax ñi gëm yeesu ni seen musalkat duñu jaar ca àtte ba mel ni kenn ci ñaari defkatu lu bon ya ñu daajaale woon ak yéesu ca bant ba kàddug yàlla nee na kenn ca defkatu lu bon ya ñu wekkoon ci bant di ko xas naan ko xanaa du yow yaay almasi bi musala sa bopp te musal nu waaye ka ca des yedd moroom ma naan ko xanaa ragaloo yàlla yow mi ñu bugal ni moom nun yelloo nanu sunu mbugal waaye moom deful dara noonu mu ne yeesu fàttaliku ma boo dellusee ci sa nguur yeesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga texe ak man ci jitaayu yàlla dégg ngeen ko kon nag yow miy déglu tey bul werante kaay yéesu mi di dund mën na la may dund gi tey jii la bésu mucc gi ëllëg mën naa fekk mu yéex li nga mën a def tey bul ci xaar ëllëg boo gëmee yéesu moo lay warlul ajana boo deewee tey di tàbbi ajana yeesu moo ko wax te firndeel na ko yàlla ci boppam nee na kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex déglu leen ko fàttalikul ne wolof njaay nee na suxlu mbër làng moom a ko gën muy bëre di daan ngay ree yeesu mi yàlla tànn mooy mbër mi daan dee mbërum yàlla mënul woon a def lu dul daan dee te it yéesu mbërum yàlla mi dafay daan ci bépp anam ci dund gi amin loolu nag xel mu dal jàmm ju wér ak yaakaar ju sax la jural taalibe kirist yi moo tax nuy bég ci sunu musalkat bu am doole bi xarit yi fii lañu yem tey ak yéen ba beneen yoon fii ci émission yoonu njub su ngeen amee laaj ci li jàng tey wala ci meneen mbir bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li Yeesu waxoon Yowaana bi mu ko feeñoo naan bul ragal dara maay ki jëkk te maay mujj may aji kiy dund deewoon naa waaye maa ngi di dund ba faw